mën ngeen seetaan itam émission bu leen neex wala bi ngeen raté mën ngeen koo naat ci application bi application Leral TV mooy télé ci poche ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ànd ak ñun euh, ci Leral TV Leral FM rafetlu saa su ne euh, ànd bi tey ñuy àndaat ak yéen ci seen quatrième numéro euh, Leral askan wi ni koy defee dimanche bu jot jóg dem ci ñi nga xam ne ñoo di askan wi ñuy tànn benn gox boo xam dañ fay dem teew waxtaan ak ñoom ngir ñu mën a fësal li nga xam ne mooy seen ay jafe tey mu nekk ñeenteelu numéro bi ñu ñëw fii ci site Baraka yanoo ak Jano ak marché Liberté 6 extension bu ñu waxee nag cité Baraka yàgg nañu wax que ni dëkkuwaay bi dafa xat konteel ay jafe-jafe yu bari jafe-jafe yëpp jëm ci wàllum dëkkuwaay donc loolu moom moo waral tey ñu déplacé wu équipe bu leeral ñëw fii tey seet si leen pour waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi yeewoo mën leen euh, euh, wan jafe-jafe yooyu ngir ñu mën ko saafara léegi-léegi ñu dem ci biir ngir mën a waxtaan ak ñoom wan leen également li nga xam ne moo di seen dëkkuwaay Cité Baraka ñu ngi taxaw ak euh, Oumou Kalsoum mu nekk présidente conseil bu euh, Cité Baraka moom la ñu taxawal laataa ñuy toog ak jeunes yi ñu waxtaan ak ñun parce que kenn ku ci nekk dinañ la jox li nga xam mooy suñu comme ni ñu ko defee ci yeneen diwaan yi ñu jot a dem ngir a wax jafe-jafe xam moom nga nekk di jànkonteel fi nga dëkk Oumou ñu ngi lay nuyoo. maa ngi leen di fay. Mhm. di leen di leen sant. comme ni ngeen ko waxee comme maa ngi si yoon laa nekkoon mais bi ma ñëwee ma xam ne lii lu am importance la. ma dagg sama yoon ñëw en tant président conseil de quartier ndax fii mun naa la ne bi may ñëw fii maa ngi am 9 kon 9 ba heure bi kon du lii lool lu bëri la kon biñ fi ñëwee suñu début métti woon na torop torop torop ñëw nañu xuus nañu nekk nañu ba ni Macky Sall ñëwee dugal ci loxoom ak euh, madame Oven dugal nañu seen loxo moo wax dëgg yàlla suñ nee jàppuñu si wax parce Euh, fi ngeen njëkk a dugg foofu lañu ñu njëkk a defaral ñooñu dem nañu mais ñii ngeen gis fii nii. bees lañ ñii nii war nañu dugg mais ñun lu suy lu suy jafe-jafe comme ñoom critères yi biñ ko doon ñëw di di joxe fii si biir koñ Baraka dañoo ñëwoon ne jeune bu marié wu duñ la bind. femme bu amu kii duñ la bind te dooneel ka boo ñëwee si baraag léegi jeune bu marié wu du am na kër am na baraag femme am na baraag léegi bindoo jeune bu marié wu léegi nga ne ku marié lañ la wax critères yi léegi ñun bu doon suñu sago nag loolu tuuse nañ trop parce que doon def nañu handicap bi nga xam ne ñii bu ñu demee ba dugg ñii dañuy dugg incha allah yal na yàlla def ñu dugg ak jàmm mais après ñi des ñun fu ñu war a dem ba ci man mii di wax ak yéen bu guddi jotee si saal laay lal maag sama ñaari doom sama kër papa laa dem nekk kon nag. Euh, parce que yow bokkoo ci ñu ñu yóbbu. waaw boo boo sam papa dem na. sa papa mais man. ak ñeneen samay morom ñu ngi fiy dund ñu amul. amul jëkkër ah ñu amul kii ñu amul si kër yi. amul ci kër si kër yi maanaam bu ñuy demee. Mhm. ñi des ñi fu ñu war a dugg ñun loolu mooy suñu. loolu mooy mhm. suñu problème jamono bi moo tax ñu lancer message à tout moment fu ñu gis lu mel ni ñun dañu am occasion ñëw di ko di di lancer message boobu. Mhm. di def tamit euh, di sant suñu kilifa yi fi nekk yëpp parce que délégué bi tam maa ngi koy woo mais jotuma ko. maa ngi koy woo jotuma ko maa leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm comme ni ma waxee xale yéen di tax seen tànk mooy ñu wax suñu jafe-jafe loolu moo leen fi indi ñu na suñu jafe-jafe loolu moom lu gën tax bëgg nañu ñu jàppale ñu président Macky Sall. dina xam naa am na ci yaakaar mais balaa loolu parce que am na ñeneen ñoo xam ne ànd nga ñu nekk ay jeunes dëkk ci dëkk ci euh, cité bi. mais mhm. balaa loolu dañuy ànd ak yow nga wan ñu fii dëkkuwaay bi. Mhm. Euh, naka la mel pour nit ñi mën a xam réellement. Mhm. waaw jeunesse bi moom loolu moom macha allah yàlla def na jeunesse bi man lañ jox bopp fii si biir koñ bi. moo tax ñu ngi sa te maa ngi maa ngi ñaawlu li nga xam ne après mu ngi ñëw dal seen kaw. parce que ñoom ñëpp fii lañ ñëpp fii lañ juddoo ñenn ñi si ñoom si baraag lañ leen wasinee si biir baraag yi fii dagg fi seeni jumba kon nag fu ñu dem amuñu dañuy yuuxu wàllu xeexuñu coowuñu mais dañuy ñaan ndimbal parce que dafa tiris ñii amuñu fu ñu dem fii la ñu xam. est-ce que mën nañu mën mën nañu gën a. tamit ñu ngi waaj a am lu ñuy xeex si biir koñ parce que xam nga foo dem am na am na lu bon. léegi nag li fi nekk ñun ñu ngi koy bëgg a dindi mhm. mais bu dee suñu sago dañuy indi li nga xam ne te mun nañ ko jël teg ko suñu loxo jeunesse bi mhm. nee leen lii ñoo ko bëggatul ci yéen mais bëgg nañu lii mhm. teg nañ ko seen loxo ngeen xool si li nga xam ne moom ngeen di jëfandikoo si lu baax loolu tamit ñu ngi koy ñaan président bu dee yaa ngi ñuy dégg. mu ngi leen dégg voilà léegi dañuy ànd ak yow Oumou balaa ñuy jox euh, yi ku ci nekk nga nga mën a wax ñi nga xam ne lañ fi lañ fi lañ ñu mën a xool image fii dëkkuwaay bi naka la mel. waaw pour ñu dugg. la ñuy xaar. lii néeg la nii. waaw néeg la. d'accord léegi ñu am fi 6 ans amul courant. mun nga tëdd sax lii wàcc sa kaw lii yàgg na trop ay bant kese la. lii yàgg na trop ay bant kese la nawet bi bu ñëwee dañuy sonn nawet bi bu ñëwee maire ak xale yëpp ci biti la ñuy taxaw ba fajar barki alxuraanu kariim ndax ci biti mooy tane sax ndax ci biti ci mooy tane sax ci biir. barki yaa xoolal lii lii essai yoon la presque léegi mu am fi six ans lii nii ay bant nga xamante ne ay xale yu ndaw ay liir ak ay mère ay magum jëmm bu doon ñun jeunesse bu doon ñun góor ñi kese sax garaawul du metti mais ay xale yu ndaw ay liir ñooy tëdd si lii nii nawet bi ñëw fii nii xoolal néegi instant néegi dañoo ñëw ba buñ koy defar ci début bi nekkul nii la meloon commencement bi instant yàgg tellement que mu yàggee dafa dem ba wàcc nii lii est-ce que kon lii nañ ci jàpp tamit quoi en fait ndax ñun ay nit lañ ci dëkk bi lañ dëkk ñun mënuñuy jëlee suñu kër suñu kër ñun suñu kër fu ñu nekkoon miir la. fan ngeen ci koñ bi lañ nekkoon mais côté beneen la côté bu ñu tabax nee ci bâtiment yi fu ñu tabax ñun foofu lañ dëkkoon mooy bâtiment yi bees yi nii foofu lañ dëkkoon lépp miir la woon carrément. ñu jëlee lañ ñu jëlee ñu fa ne ñu dañuy tabax foofu noonu pour lan pour après bu bu ñu paree ñu delluwaat mais ñu defal ñu ay bant nii dañoo waxoon que ni doo leen yàgg affaire yooyu noonu mais sant bii nii mooy nii gi nga lu ñuy dund nii ay bant imagine toi yow xoola lii lii xar sa essayé yow sa xar yéene nga ko mu dëkk ci lii nii mais ñun suñu ay parent ñun dañuy tëdd sax nelaw suñu xel du dal fu mu toll nii boo nekkee ci néeg bi nit bu nekkee ci biti di waxtaan yow bi nekk ci néeg bi da nga koy dégg carrément yow booy waxtaan ki nekk ci biti da lay dégg kon lii rafetul lii dañ cee war a jug parce que ñi tamit ay magum jëmm ñoo fiy tëdd wóoru ak ay xale ay liir ñun bu dee ñun la xamama lii mun na wàcc sama kaw garaawul góor la lu ma dal mun naa xëy dem hôpital ñëwaat mais lii bu wàccee si magum jëm est loolu dina ko arranger di yoon kon nañ jóg ci lii nii dañu jàppale ñu xam nga bi nga yegsee ba léegi ñu ngi xaritoo li ma bëgg wax lu ndaw la am na ñi nga xam ne ñu ngi fii sonn nañu yor nañu seeni doom ñun ñu ngi seeni ñun ñun même bu dee benn néeg ak saal sa am nga sa doom ak moom parce que on n'est pas nombreux la famille nombreux dañuy am problème loolu la ñu ñu dimbale ñu la famille nombre avoir un taux pour vivre man loolu rek la wax toit pour vivre pour la famille ñëpp na ñëpp am fu nit di dëkk këram loolu la wax ñun dañuy dugg xale yaa ngi fanaan si couloir yi ah man de tele lay waxal de maa ngi wax ak samay doom de Oumou Senghor sama doom la de te maa ngi koy gërëm di ko sant ci kattanu yàlla xale bu baax bu am jom waaye nag yàlla waxul kenn dara xàcc bu na wërsëgu waay la may bëgg ngeen dimbale sama doom yi jigéen yi nga xam ne maa leen seen mariage kii mariage am maa ko togg fii kii maa ko coiffé togg ko ba ñu tollook man te maa leen gën a doon xale ñoom ñoo gën a màgget sax kon nañ leen jàppale ñu jàppale xale ñun fii rek la am ñun baraak la am ñun Jacques Bencourt moo ñu wan yoon bi Bencourt Biencourt man inda tiers monde laa nekkoon maa yoroon crèche bi yor xale yi yor garderie bi yor xale yi bañu ñu toll comme ay quinze garçons ñëpp ma ñu am kii bachelier yor naa fi cinq bachelier doomu chef de quartier yëpp bachelier maa leen jàngal dëgg la wala dëgg moo tax ma duma wax damay noppi rek tey da ngeen ñëw rek moo tax ma topp seen ginnaaw mais naruma ci woon topp mais affaire bi dafa xaw a cas critique moo tax ma wax ci mais kon wax leen ci ñu def ci li nga xam ne loolu mooy dëgg ñu jox xale yi fi nga xam ne même bu de euh, kii pukku sax ku am sa jabar nga dugg ci c'est mieux que rien moo gën xale yi di dem di agressé ka sàcc ka def ku am looy liggéey nga am foo tuwaa Macky lu mu wax tuwaa pour tout le monde mais loolu kenn gisu ko ñun Macky moo ñu defaral de man loolu man sant naa ko gërëm naa ko ndax man yàgg naa j'ai cinquante quatre ans maaj bàjjanu gox maag moom ñooy dox boo demee seeti ko dina li ma la wax loolu la lay waxaat du ci teggi dara ngeen baal maak ak sant naa leen gërëm naa te xale bi ku jara gërëm a ngi nii xale yi ku am problème moo ciy daw moom kese ci dëkk bi moom kese mooy jigéen mooy daw mooy papa mooy yaay te amul dara sandwich lay jaay ak boroset te ku ñëw mu jox la ku xiif mu jox la léeg ma ne ko umu looy looy looy ana kii recette bi mu ne ma yaay aw dara ma ne ko kon 5000 la am mu ne xanaa 5000 bi yaa koy lekk ma ne ko delloo ma sama 5000 man sama jëkkër ancien militaire la man je perçois ma pension alimentaire namuma dara mais bugguma injustice man dama dugg ci baraag yi ndax sama yaay dafa sanc baraag yor fi ñaari kër ñu nangu kër gi yëpp kër bu ngand cinq kër cinq chambre xale góor yëpp ci kër gi la ñu dëkk dëgg la wala du dëgg ñu nangu kër yi yëpp ñu jox ma néeg ak saal foofu laa dëkk fay naa courant fay ndox maa ko wax nit booy wax dangay wax li nga xam ne mooy dëgg fay naa sama courant fay ndox ñoom buñ ko déggee dinañ xam ne wax naa dëgg parce que j'ai pas menti je dis que la vérité fen baaxul loolu laa amoon lu may wax ak yéen yàlla na leen saxal seen liggéey ngeen continuer ko mu doon jaamu mais na xale yi am jàmm xoolakee toog dafa feebar elle n'a nulle part où aller. naa mi ngoog ni ñu ànd ak yéen ba fi nga xam ne moo di ni ngeen ko gisee ak image yi nga xam ne moom moo leen doon ñuy dund nag lu doy waax eh, wax nañ leen ko ci eh, ndoxteel bi comme ñu ngi leen doon wan image nañ également umu waxtaan nañ ak umu kalsum donc dégg ngeen lim ñu wax mu nekk vraiment lu metti loo xam bi ñu ko dalee dund eh, yàgg na te bu ñu sañoon également ku leen ci jàppale ku gis bâtiment yi ak ni mu mel ay mag bi ci yeewee comme ça yeewoo comme ça que jeune bi ñu denk suñu micro lu ñu xam ne lu metti la ñu ngi ak beneen jeune muy Mouhamed aussi euh, fii la dëkk Mouhamed ñu ngi lay nuyu. maa leen fay bu baax a baax. amaana dara ump ñu fi ay xale la ñu dara ump ñu baraak di leen sant di leen ndax lu bëri suñu kanam la mais jafe bi gars yi ko yàgg dund biir baraak te am na jeunes yi nga xamante ne ñoo ngi yor seen métier yàlla moo ngi leen di teral amaana tey suñ fi jógee am na fu ñu mën a dugg mais am na ñi nga xamante ne tey suñ fi jógee wallaahi amuñu fu ñu mën a dugg dañu dem fanaan si ay mbedd wala di fanaan si ay buntu këru jàmbur te loolu dafa ñaaw trop te lii man lu ma gën a métti si affaire bi du nit moo ko ñëw defaral nit du papay nit moo ko defar du yaayu nit moo ko def dañu ko may te yàlla rek tax ndax bëri nañ ay dëkkuwaay yu meloon nii te kenn mayu leen lii kon tey suñu ñëwee ba may ñu dañoo waroon yaatal suñu xol def ñun ñëpp ñuy benn ku nekk am li nga war am même su nekkee ku nekk benn pukus nga sax di nga xam ne carrément li sa cër ak sa ak ak yelleef jox nañ la ko fii kumba am ndey ak kumba amul ndey la yaa neex neexoo ma ñuy def te waxuñu dara essay ni keroog dañoo am benn réunion bu ñu fii dem naa dem naa nag waaye man li ma fa intéressé laa fa déglu lu ma fa intéressé wul déglu ma ko ndax nee nañu tey dem naa dem naa nag da nga koy defar si njëlbeen fekk dara amul mais nga bàyyi ba ñu ne carrément instant yi nii gars yi dañoo nekk si benn affaire xeex si yëkkati beneen affaire kon da nga bëgg a jaxase jeunes yi ak askan bi te ñun du ñu nangu ku ñu jaxaseeg suñuy doomu doomu gox ndax ñii suñuy rakk lañu suñuy mag lañu suñuy lépp ñoo fi nekk tey amul benn dëkkuwaay boo dem te amul agression amul sàcc amaana bu feeñ bi ak bu nëbbatu bi ndax almadi bi nga xamante ne naan moo gën a lix am na am na ay am na ay jaag bu kon du fii rek la du fii rek la am xam nga bu doon fii rek la am tey dinañ ko nakarlu waaye dëkkuwaay bu ne am na adduna bi moo demee noonu kon bu ñu jël benn affaire bu ko lii lan moo ñu ñor ba ñor ñu mooy nañu jël li nga xamante ne jeunes yi ñoo ko moom tey paa dañoo war a xalaat ne carrément ñoom seen béy wey na mbuus fii jeunes yi ñoo fiy des ndax kenn ñaanul tey say njaboot jiitu la da ngay ñaan yàlla nga gunge say njaboot ba yàlla def lu gën mais munoo jël tey yow kër yu bëri duggoon naa fa la lañ wax sama yoon nekkul samay doom nañ dem uti fu ñu nekk loolu dafa ñaaw ba si kanamu yàlla paa yi la ñuy jël di leen jox te ñun amuñu xàjj amuñu seen fii ñun rek ñoo bokk ndey bokk baay fii amul pël Fuuta bi amul séeréer bi amul tukulóor bi amul bambara bi fii xeet bu ne am na fi xeet bu ne am na fi fii ku fi sëylu pël Fuuta sëy nga fa ak tukulóor wala séeréer fii amul ak doom ak pël Fuuta am nga fi ak doom kon ñun ñëpp ñoo bokk nday bokk baay ndax su dara amee tey ñun ñëpp ñooy jóg amul kii mooy jóg keedu jóg ñun ñëpp ñun ñoo fa yàlla kon dañoo war a yaatal xol yi jeunes am li nga xamante mooy seen ak ak mais soo bëggee ne carrément da ngay raxas sa koñ mais na nga fekk yow nga xamante ne yow koñ bi nga raxas koñ mooy nga raxasee ko nga yaatal sa xol boole si ñëpp ñuy benn loolu moo ëpp solo dëkkuwaay yi nag ñun luñ ci bañul bañuñu ko si mooy nga raxasee ko naan Serigne Touba Mbacke billaay wallaay tallaay luñ ci bañul ñoom bañul ñu ko si ba yàlla may ñu fu ñu dugg ndax dañ ñu ko may ñun ñun ñàkkuñu fu ñu jëlalee suñu waajur fu ñu nekk Serigne Touba Mbacke ba yàlla def lu gën mais tamit dafa dafa dafa baaxoo tey li ñu leen may ngeen bokk xam nga lan la ñuy taxaw di wax ku amul na nga na nga na def mais soo bëggee ne carrément agression day dañ sàcc bi day dañ jaakatu yamba bi day dañ mais amuñu liggéey xam nga lan la ñuy taxaw dëkk bi ku ne gis na ko amul na nga gis ku lekk ku jàng ba yey ay diplôme si ay diplôme lay toog diplôme am amul dafa amul lu muy liggéey lan moo fi am mais da ngay jaay nga dugg si gaal yi def sa morom moo fi am kon bu ñu jël benn affaire rek bu ko teg si kaw jeunes yi jeunes yi dañoo yàqu dañoo bon kenn bonu fi ku dëng moo fi am soo ko jubantee day ñibbisi kon bu ñu jël benn affaire bu ko teg ñoom paay barki Serigne Touba suñu grand frère ñoo dàkk tox bon ñëpp te ku si si paquet bon si booy ngay ñoo ñaan ko benn paquet wala dagg may la nga tox kon tey suñu nee dañuy xeex benn affaire dañu xoolaat ba pare benn affaire soo koy jiite day fekk yow nga njëkk si man loolu laay ñaan di lancer ne leen nañu boole xole ñu doon benn ku nekk am li nga war a am loolu moo am solo li ñuy def ni amul benn sens billaay wallaay amul benn sens ndax suñu sancoon kañ bi yëpp kenn kenn nekkatu ñëpp wuyu ji seen borom kon nit bu ne da war a xalaat ne ëllëg da ngay borom te suuf dafa xat torop te ñaan nga mais non lii man maa tey lu ma def kii moo ma neex ma bind ko kii neexu ma ma bind ko noonu fii ñun ñoo bokk ndey bokk baay lu ñu lu ñu munti rayante parce que Serigne Touba soo tourné suba dañuy fekk ñu toog di waxtaan kenn du manqué benn xale du manqué cër mag mais mag nag su bëggee ñu manqué ko cër xale yi dañ koy manqué cër de ndax su defee lu warul xale dañ koy wax ba mu saf saf kon bu ñu mene xale si dara ñun dañoo bëriwul quartier bi dafa bëriwul ba ñu mën a am xaajaloo amul lu a am xaajaloo mais ku jàngoon ba benn ba benn moment sa yaay amatul lu mu lay fay lay mais ñun ñu yor métier sax day dëgër su amul xolu dëgër nga xamante ne amuñu métier fenn su dara lu ñu jàpp léegi gem bi amoon na benn say morom say morom mag ñoo ñoom bu ñu fàtte benn affaire suñu koñ amoon na suñuy mag yu gënoon garaaw booy da ngay nekk si game ñii suñuy mag yu gënoon garaaw booy te ñoom sañu ñu woon taxaw ne noonu ñooñu dañ leen di jëlee koñ fàtte kon ñoom booy la ñuy yàq suñuy mag yu gënoon garaaw booy ñun nag xamala la ñuy ñaanal booy suñuy mag yu gënoon garaaw jàmm lañ leen di ñaanal ak salaam li ma leen wax rek mooy loolu amul leneen li ñuy wax kon ñoom booy la ñuy ñun booy xamala la ñuy ñaanal saa ne la ñuy ñaanal sama fierté dama yeew fekk booy di jàng di liggéey ñaanal dama yoroon yoroon naa set booy sama atelier billaay wallaay di leen jàngal métier la ñuy añee la ñuy defee lépp événement su jotee barki alxuraan damay xañ sama bopp jox booy yi am naa jabar man maa yor sama famille mais loolu dara ndax soo ko yor da nga koy def comme sa doom da nga ñëw ba benn moment seen yaay jëlee leen fa yóbbu leen daara mais booy ñu yóbbu daara barki alxuraan ñoo gën a dëng tey nekk di jaay boon mais soo yóbbee sa doom daara doo ko yóbbu rek nga sànni ko fa da nga yóbbu di ko nemmeeku di xool nekk ndax internat na fi trop daara yi bëri na fi am na ñi nga xale yi jamono ji ndax da ngay fekk melokaan bu ne moo fay ñëw kon ñun lan la ñuy ñaan tey ñun suñu jeunes yi ni ñu nekkee yàlla suñu borom bi génnee leen si mais soo leen si bëggee génne te ñoom bëgguñu see génn da ngay sonn rek ndax mënoon jëm beneen gox di ko def kon da ngay toog waxtaan ak ñoom te réunion bi bu ñu ko doon def man gisuma fa benn jeune bu ñu convoqué mais sooy def benn bi da ngay convoqué jeunes yi nga toog waxtaan ak ñoom si xel ndax nit jamono bi loolu moo fi des amul du kenn du dóor nit kenn du saaga nit da nga koy toog nga waxtaan ak moom si xel ne ko li kat li ngay def ni rafetul est ce que doo xool beneen méthode booy defee moom bu dee am na dégg-dégg su demee arrière dina xam ne carrément kat ñii wax nañ ma lu baax te liñ ma wax ni conseil bu baax la mais déggu si ay nit lañ koy déggee mais du ñu bàyyi te ñoom xamul tax du ñu bàyyi dañuy ñeeñi seen xol mooy metti ndax amuñu tey fu ñu dugg tey jeunes yi soo xoolee guddi jeunes yëpp soo génnee ci couloir yi nga leen di fekk ñuy fanaan ci couloir yi ngay fekk jeunes di fanaan kon jeunes yi nan la ñuy bàyyi def lu bon mais jeunes su suñu amoon fu ñu dugg tey du ñu def lu bon barki Serigne Touba dañuy naan nag man maa xeexal jeunes yi wala man maa xeexal jaagadu boon yi xeexalu mag jaagadu boon yi dafa ne damay tox boon mais du ma jaay boon damay tox cigarette mais du ma ko jaay mais tamit lu lu ñu metti dañ koy wax te yàlla rek tax ndax suñu santé tey suñu nëtu suñ suñu booy yi fan la ñuy jàpp tey su lak lakk amee balaa ngaa gis kenn booy ngay ñëkk gis doo gis keneen su déj amee balaa ngaa gis kenn booy ngay ñëkk a gis kon ñun ñoo war a a toog waxtaan ak booy mobiliser booy yi leen si yoon tey mun na am tey booy bëgg nañ koo bàyyi mais fréquentation beneen buy duggaat fii moo tax duñ ko mën a bàyyi kon suñu toogee waxtaan ak ñoom ne leen carrément kat même su nekkee yéenay def mhm. mais bu leen nangu keneen di leen rax d'accord wasalaam loolu rek laa am lu sànq ba tey ngay ngay wax ni ay kër yoo xam ne mooy yi ñuy tabax fee xam naa après dinañ dem pour wan ko wan illustrer leen ko image ñu mën ko gis ñoo xam ne dañ leen di jàppale di leen di leen yóbbu mag ñi lañ ñuy yóbbu bàyyi fi seen ay doom est-ce que loolu mën nga ci ñëwaat pour gën a leeral boo déggee moo wax la critères yi maanaam bi ñu ñëwee xam nga ñun ñu fiy ñëw Jacques Bénicourt moo ñëwoon commencé fii fekkoon fii doon kàmb gabaar. loolu kañ ngeen ko commencé. loolu 92. 92 92 lañ fi ñëw. fii nii fii doon 92 ba léegi ngi fi ñu ngi fii fii yëpp àll la woon. léegi moom bu mu ñëwee doon def projet bi far yàlla nag mu dem pour indi ji benn financement pour tabaxal ñu yàlla moom ko fa. si la nag ki ñuy ne madame Oven op 81. Euh, ànd ak lëkkaloo ak Macky Sall ñoom ñoo continuer tabax yi. ngeen kayit buy firndeel yéen yéen a ko moom. léegi ñoom bu ñu ñëwee di maye. Mhm. dañu suñ ñëwee di maye dañu ne léegi suñ ñëwee si kër fekk fa célibataire bu leen ko bind ku am jëkk ku marié ngay bind ak papa ji léegi donte ne boo duggee si biir baraag yéen yi comme kii kër papaam bu njëkk defar na ko baraag man mi sam papa defaroon na ma baraag néegu baraag léegi ñu sotee ma binduñu ma bind sam papa. léegi turam moo génn trois chambres moom moo dem léegi ñun ñoo obligé fekk si ko foofu guddi bu jotee damay lal man ak sama doom yi si saal bi léegi ma ne nag léegi ñoom loolu si si njëlbeen ñoom ñoo ko warutoo woon nangu ndax man bu nekkoon jamono boobu dañ ma faloon comme ni ñu ma falee nii ma fekkee loolu dama leen ni loolu mënul ne parce que da jàppale te yàlla tax léegi su ngeen defee noonu yeneen jeunes yi bu ñu bu ñu duggulee fu ñuy dem ñi mun nga leen sànni. mais Mouhamed mi ngi wax léegi réunion est-ce que yéen réunion boobu assister ngeen ko pour peut ngeen mën a wax li ngeen bëgg exactement ñoo yi jox nañ ko xale yi yëpp peut-être am na ñu ñi nga xam ne comme ni ko ak ñiy bind waaw ko di joxe nañ ko ba fii jox nañ leen ko mais xëy na ñoom ñu ngi dund dund bu metti ci koñ bi demuñu mais ñenn ñi seen yaay dem nañu am nañu seen yaay fekkee réunion bi ak seen papa yi dem nañ dinañ leen ko wax mais comme lu Ahmed wax comme li Ahmed euh, wax euh, li mu wax li loolu noonu mun naa ci ne benn côté tamit dañuy ñaan yàlla comme nu mu ko waxee xam nga bu ñu duggee deuxième lot bi ñaan nañu yàlla ñu dugg suba suba mais majeure partie jeunesse bi nekk fii njuuj njaaj yëpp xam nga du ñu dugg amuñu fu ñu dugg te kenn du leen sànni kon agression bu ñuy wax fii yàmbaa bi kon peut-être dina gën a continuer te koñ boo dem am dëkk boo dem am na ko léegi ñun boo déggee may jooytu ne nañu ñëw trouver solution bu ñu di duggee parce que doo tere ne ni du dugg bu ñu duggee ba pare nañu xool jeunesse bi fii solution fu ñu mun a amee am lu ñuy jàpp jàppale leen pour ñu nit lu ñuy xeex li dinañu yomb benn côté ñoom tam benn côté nañ ñu yërëm te xam ne parce que man keroog gunge naa benn femme mu jëli convocation kaaboo bu lañ ma mais cas bu taxee ñu bëgg ñu sànq lu tam ne ñun agression yàmba moo tax peut-être du ñu dugg ak du ñu li ñoom nañ ñu jàppale. suñuy doom lañu suñuy rakk lañ suñuy lépp lañ ñun lu ñu mun dinañ ci taxaw xam nga dama naroon a dem taseeg yéen dama xam ne lii ñor na ma lu ñu mun a jàppale si jeunesse baraka nañ ñu jàppale parce que yenn financement itam bu ñëwee comme ñoom nu ñuy jooytoo di ko wax du ñu gis kon bu ñu leen gëstuwee ñoom jeunesse bi tamit dina baax lu ci bëri kon dootuñu ko def foofu tamit ñun ñu ngi ciy ñaan ndimbal di dékk suñu loxo di ñaan autorité yi Macky Sall ñu ngi koy ñaan parce que li mu fi def ku ko santul ku nekk da ngay wax da ngay wax lu ne parce que lii nii yombul nga dugg ci gratuite cotisation lañ ne la ñuy joxe pour ñuy waaye vingt six mille ak i neuf mille ngay joxe kon loolu xëy na du fay du fay kon dañ koy sant mais sant bi mi des na parce que ku décédé jeunes yi la ñuy gis man sama papa yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana jeunesse bi ñoo ko wàccee bu mu décédé ñeneen ak ñeneen lakk bu amee ñu léegi ñi bu ñu demee ñun fu ñuy dem ah dafa triste ñoom tamit yaramam na daw ndax bi mu ñëwee baraka dafa ne bu kenn jooy na ñëpp kontaan moom Macky Sall léegi nag jooy bi nag mu si côté jeunesse bi jeunesse baa ngi jooy man mii di wax ak yow damay tëdd du ma nelaw parce que su ma tëddee guddi sama doom fu may tëdd léeg du chaque jour lay nangu ñëw lal ak man si euh, salle 2002 la sama taaw 2002 kon léegi kon man maa ngi si jooyu jeunesse bi jeunesse bee ngi jooy nañ ñu ñaan dañuy ñaan wàllu daal xulóowuñu xeexuñu manque ñu respect kenn sant nañ ko gërëm nañ ko ndax suñu parents yi mu defal ñun bu doon suñu sago ñun ñooy defal suñu parents yi mais bi ma fii ñëw am na 9 ans ba léegi sama doom 2002 kon bu ma ko joxee damay am sët ba léegi kon ñu ngi fii kon duñ fii nii munoo fi daa ki fii la juddoo yaroo fi boo ko joxee jabar léegi day am day ñuy am sët kon léegi daal triste bi ñun loolu la nañ ñu jàppale jeunesse su baraag la ñu bëgg ñu jàppale ñu te yàlla te ndax mag yi moom macha allah zéro faute parce que boo tiimaloon léegi mag du la lay wax am na ñaari néegam day dem dugg mais jeunesse bi ñun moo tax ñuy wax nañ ñu jàppale si financement ak dëkkuwaay lu ñu mun a jàppale si liggéey si lépp nañ ñu woo ñu jàppale ñu jeunesse bi baraka ñun loolu mooy suñu feebar du leneen jeunesse bi nga tëdd si couloir dafa metti léegi ah sa doom mënoo ko contrôler boo tëddee moo tax ba un jour mus naa toog ak préfet di li ma wax dama koy répété waat ma ne tout est ok si ñeneen ñi mais man personnel mun naa ne tout c'est pas ok su ma lekkee léegi ginaar day rees parce que soo tëddee sa njaboot nekk ci mbedd bi doo sa xel du dal mun nañ la woo léegi léegi léegi lu ko waral soo amoon sa pantere da ngay tëdd ak moom te mun na fi nekk munu fi nekk ñoom la ñu dékk loxo nañu xoolal solution nañu jàppale si solution loolu daal lañu leen di sant di leen gërëm kontaan nañu si ñoom ñëpp parce que lu fi am dañuy ñëw jàppale ñu am nañ fi mbër am nañ fi lépp ba ci madam dem tamit ñu ngi koy rafetlu si taxawaayam ndax suñuy jafe-jafe moom tamit gis nañ ko suñ fi amee dara dina ñëw jàpp ci kon nag loolu tamit duñ ko duñ ko seetaanee ba ne duñ ko remercier moom madame Deme ndax lu mu lu fi dégg suñ ko woowee duñu tànkamlu léegi la pare sax léegi léegi laa pare wax ak moom dina jàpp ci lépp kon nag loolu la ñu am lu ñu leen di ñaan autorité yi jàppale leen ñu Macky Sall bu dee yaa ngi ma dégg jàppale lañu Amadou Ba soxla nañ la fii Baraka. man président conseil de quartier jeunesse baraka soxla nañ la fi bu baax a baax a baax loo ñu mun a loo ñu jàppale doyul si jeunesse bi nag laa wax de ah, waxuma ya kalaba jeunesse su baraka ñu am fu ñu teg seen bopp loolu la ñu bëgg ñuy dugg nag nañu dugg ak jàmm ak salaam kenn terewu leen ñu dugg mais après fu ñuy def ñeneen ni seen yaram day daw xanaa ñun loolu mooy suñu feebar heure bii loolu la. moom fii moom daanaka gars wax nañ dëgg yàlla moom fi moom gars yi daanaka wax nañ lépp ñoom moment bi wax nañ li ñu war a wax yëpp presque li ma ciy dolli mooy ñun dañoo war a jàppale soxna suñu paa dañ dañ fee sonnoon de suñu parents woon ci ci ci nawet bi aussi biñ ci génnee yàggul naka ngeen ko doon nawet bi métti woon na trop trop trop trop trop sax comme ay ati at la mel si ñun billaa comme ay ati at suñu benn nawet bi te chaque chaque nawet tamit noonu la chaque nawet tamit noonu la lii di ñëw tey la baraag neex rek ku nekk naan day ñëw day ñëw jéem a bokk wala dëkk yooyu noonu mais bu njëkk baraag yow fu fu vingt jotee yow doo fi ñeme jaar parce que nu mu meloon la tey la rek neex ku nekk taxaw di ñu teg bët mais wax dëgg yàlla fii nii li ñuy naan yow ànd nañ du du dugg ngeen ci koñ bi yëpp est gis ngeen fi bandi est-ce que gis ngeen fi ku ñàng est-ce que gis ngeen fi fu ñuy def lu bon fii nii est que gis ngeen gis ngeen fi loo xamante ni yéen duróo na leen ak lu lu bon carrément fii amul bandi barki Seydina Mohamed fii amul bandi amul dara amaana ñenn ñi dañuy juge fu ñu dëkk ñëw ba fii di saltal di dem ñibi su ko defee ñu jàpp ne ñun la soxna si ñun suñu parents yi dañ fee sonn de yéen yéen ñu war a autorités ñoo ñu war a dimbali te xam ne ñun suñu parents yi dañ fee sonn dëj fi lu nekk ay pot lañ doon def pour pour defar ay néeg ay pot lañ doon dajale di ci ay néeg ba tey jii mu demee comprendre nga ba tey jii mu demee nii kon tey jii ñun nañu dimbali te suñu maire yi dañoo gore barki Seydina Mohamed cagatuwuñu defuñu dara dañoo jur fu ñu war a juree yar ñu fu ñu war a yaree kon tey jii nii lii mënul ñàkk nañu dimbali quoi en fait ñu loolu la man loolu la am lu ma ciy wax nañu dimbali carrément te ñu xam ne fii bandi amu fi man maa ngi nii su ma xëyee damay dem liggéey man ak samay morom suñu xëyee dañuy dem liggéey chaque jour chaque jour damay xëy dem liggéey ma wàcc ñëw sama wéru kër yaay ma ñëw sama kër yaay toog mais tey jii nii su nekkoon jox nañ ñu ñun ñëpp carrément wala ñuy jox ñu loo xamante ni ñun ñëpp dinañ dugg bu njëkk ñun booru tëdd jotee sama papa daf ñuy dugal ñun ñëpp mu xool doomam yëpp mun a dugg leen ñu dugg mu tëj buntam kenn du génn boobaa essayé dinañ mun a dem def lu bon loolu su amoon kenn du dem def lu bon mais tey jii nii sa papa ñu jox ko benn néeg wala ñu jox ko ñaari néeg nga am ay mag yi jigéen da mun a fanaan foofu. xanaa ñàkkuma fayra bay fanaan foofu noonu xalaatuma ko mais tey jii suma fanaan foofu tamit ma génn dem mun nañ ma influencer ma gis ñeneen ay àndandoo ma dem def lu bon wala su ma gàttee xel ma dem def lu bon parce que am na ñoo xamante ni ñu bëri fii nii àndandoo moo waral lool noonu kon tey jii nañ jàppale jeunesse bi ndax fii nii bu tàkkoon léegi am na un jour fii dafa tàkk avant sapeur di ñëw tàkk lakk-lakk bu métti la avant sapeur di ñëw ñun jeunesse ci fay na lépp ba maire bi ñëw bu mu ñëwee daa kontaan sax barki alxuraanu karim donte bu ñu xaaroon sapeur amaana baraag yëpp noon na tàkk. allo mais heureusement ñun jeunesse bi ñoo jug waaw fay lépp vite fait avant dara di xew. kon tamit nañ ñu jàppale te ñu xam ne ñun ay ndaw lañu. dañoo war a dem dimbali suñuy waajur ay ndaw lañu nañ ñu dimbali ma loolu rek laa am lu ma ciy wax ay xale yu ndaw lañ tamit dañu jàppale quoi. tur bi naka la. Ibrahima. Ibrahima nga dëkk. man fii laa dëkk. Mhm. fii laa yaroo fii laa màggee. Mhm. daanaka lu ma am si àdduna bi yëpp fii laa sant yàlla bu baax tamit si loolu mm-hmm. noonu waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp mm-hmm. di sant tamit gars yi ni toog ni di yombul waaye nit gars ñëw wi si la surtout magar yéen ñi ngeen di sonnee ni di sant di leen gërëm mm-hmm. si affaire bi waaw comme sama rakk bi lu mu wax lii rek lii loolu moo fa am daanaka xëy na wax nañ lu ñu war a wax lii yëpp dañ ciy sànd ay kàddu nii rek te du bëri te tamit du yàgg booy wax nañ la loolu rek moom moo ñu am jafe-jafe si koñ bi fii mooy mettit bi soo gisee lu metti rek am si koñ bi fii nii rek mooy genre lu ñu wax li nii rek tey da ngay doon ñaari doom yu góor wala ñett doom yu góor ñu xool sa yaay wala ñu xool sa pap ñu jox ko benn kër wala benn néeg benn néeg kese yow nga nar see fanaan sa mag nar see fanaan say rakk yu jigéen nar see fanaan wala say say mag yu jigéen nar see fanaan loolu dafa ñaaw ñun amul dara lu ñuy waafoo foofu bu dul nañ ñu jàppale te yàlla tax ñun dimbal bi loolu rek lañ am lu ñuy wax foofu noonu nañ ñu dimbali sa affaire bi mag Sall mu gëstuñu gëstu baraag woy baraag yi mu gëstu mu baax dëgg la nañ dañuy wax ay bandi lépp a ngi fi. waaw du ñu ne du ñu tamit loolu amu fi am na fi waaye soo gisee booy di ko defee dañu amul fu ñuy fanaan tey tey sa doom soo ko gisee muy def na ko suudul noonu nga jàpp ko dugg sa biir ne nga tëj buntu bi est-ce que dina génn du génn du dem fenn amaana lu ñuy fanaan si mbedd mila la te fanaan si mbedd doom bu góor moo xamal na loolu dafa metti torop lu nekk ngay daj lu nekk ngay gis ba am na loo xamante ne am na ñoo xamante lu yomb mu na fëkk seen bët. comme mënuñoo maîtriser loolu noonu waaw mooy maanaam fëkk seen ba dañuy gis seen benn morom def rek dañu ne kii mënumaa dàqumaa def lii nii ñoom ñu ñëw def piir loolu noonu loolu moo tax ñu naan fii dafa am bandi te bandi xam nga rek affaire bandi moom loolu moom amul sens te loolu lu tuuti la amul lu bari lu ndaw la soo xoolee woon ñetti ñaar rek la ñeneen yëpp ah, dañuy ñëw wàlliyaan dañuy ñëw fii ni ñu demar ah, xam nga fii lañ koy defee dañuy ne fii lañ dëkk añu suñ dëkkuwaay bi moom bu ñu ko defaralee rek dañuy defar lépp bu soobee yàlla ñu loolu la ñuy ñaan quoi jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal ok jërëjëf waay voilà mi ngoog euh, mbokk yi ñoo ko gisandoo ñu ngi woon fii nga xam ne moo di ci si cité Baraka Diano ak euh, marché Liberté 6 extension euh, donc tey fii la ñu woon ci li nga xam ne moo di seen émission leeral askan bi mu nekkoon ñeenteelu ni wax vraiment mu nekk lu doy waax loo xamante si ni askan bi fii ñu ngi koy ñu ngi koy dund vraiment mérité na autorités yi ñu jóg jàppale leen parce que bu fekkee ay jeunes ñoom ñoo fi nekk ñu gis ngeen dëkkuwaay ba bâtiment yu yees yi ngeen gis ñu koy taxawal ñu ngi koy tabax mais seen ay waajur lañ fay yóbbu ñoom du coup jeunes yi fii lañ leen bàyyi ci xataay bi te ku nekk xam na ne c'est pas évident donc mooy pousser nag peut mu jur njeexintali comme niñ ko waxee ñu leen di dégg ci yu bon parce que bu ñu nekkee fii amuñu fu ñu fanaan amuñu fu ñu nekk ak ni mu mel moo leen di pousser ñuy génn ci mbedd yi te loolu influence mën na ci am tax ba def loo leen leneen donc vraiment mu nekk si lu ñuy métti la parce que boo fi ñëwul ba teg ci sa bët wala peut-être ni ngeen ko gisee ci image yi wala ngeen ñëwoon teew fi sax du ngeen bëggati dara parce que am na ci ñoo xamante si ñu ngi yeewu suñu boroom am na lu mu leen may ñu ngi tëdd ci fu feex di tëdd ci crime entre autres euh, nekk ci luxe ñoom gis nañu ko tàngaay bi xataay bi benn nekk ci la lépp nekk donc vraiment mu nekk lu metti loo xamante si ni ñoom jeunes yi nekk fii ñu ngi ci yuuxu bëgg ñu jàppale leen ci à que ñu saafara ñu ñu mën a saafara loolu li euh, ngeen gis nii fi ñu taxaw ni mu nekk projet bu yees bi ñu nekk ay kër yoo xamante si ni ñu ngi koy tabax euh, pour euh, jagleel ko seen yeneen pa yi nga xamante si ni wala seen ay mag yi nga xam ñoom ñoo fi ñoo ñoom ñoo des ci bi mais bu ñu ko tabaxee ba pare bañ nekk fi bu ñu paree dañuy continuer ñoom ndaw ñi ci boppam dañuy continuer bàyyi leen fee ñoom nag li ñu wax leer na mënuñu ñëw fii benn néeg la la seen waajur bu góor di am loolu mënuñu ko comprendre surtout ñu nekk ay góor gis nañ ci ñenn ci ñoo xamante si loolu la ñu wax donc vraiment mu nekk situation boo xamante ne boo fi ñëwee boo dëgërul torop torop doo ko mën donc ñi ngi ñaan vraiment à ce que le président Macky Sall à que autorité wax nañ ko euh, premier ministre Amadou Ba entre autres ci projet bi nga xam ci la ñu nekk di liggéey ñu jàppale leen saafara ko nu mu gën a gaawee ba lii nga xam ne moom la ñuy nekk di dund mu nekk lu metti ñu mën ci jóg. donc vraiment mu nekk une situation boo xam te ni c'est déplorable lu metti la donc boo fi ñëwul boo amul xol trop trop trop torop dëgër doo mën a continuer li ngay def remercier équipe bi ma àndoon parce que ñi ngi ko doon liggéey mais ci lu metti lañ ko doon liggéeyee muy Pa Omar Ma Oumi remercier également Fatima Koulibaly parce que mi ngi woon ci gannaaw donc seen numéro euh, seen ñeenteelu numéro lii askan bi du dund la woon ñuy jog ñëw euh, à la rencontre ci euh, bien sûr à dem à la rencontre askan wi dem waxtaan ak ñoom